borom bi moom moo ñu tàggatee ba indi ñu ci dëkk bi nga xam ni moom la ñuy wax euh, mbédab te li ñu fi indi mooy li ñuy daan di yóbbu ci yeneen dëkk yi rek mooy jéem a dem xool askan bi ak fa mu gën a sore ci seen ay jafe-jafe rawatina ci wàllu ndox ñu ñëw jéem a jàppalante ak ñoom jéem a euh, samp li nga xamante ne mooy lu mel ni lii ngeen gis nii muy teen loolu moo ñu indi fii tey ci Badat ñu ñëwoon doon seet si teen bi nga xam ne commencé woon nañ ko muy teen boo xam ne OP Sourire ñoom ñoo ko financé di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu fay leen yiw réew euh, li nga xam moom lañ sumb tamit tàmbale ko bismillahi rahmaani rahim yàlla na yàlla dogal ñu sottal ko ci alhamdulilahi rabil alamin la ñuy sàkku muy ndox yàlla na yàlla dogal ko mu am te mu nekk ndox moo xam ni ndox mu baree bari lay doon buy jëriñu waa dëkk bi nekk ndox boo xam ndox mu neex a neex ndax loolu kat moom moo tax dëkk bi boo xoolee kër yi fa ñu nekk ak fi ñu ko indi daanaka sori na soriwaay boo xam ni jégg na dayoo waaye lii sabab bi rek mooy jéem Euh, sakku li nga xam ndox mu neex parce que fi lañ ko yaakaaree ni buñ ko amé mu nekk ndox lu neex te bu ndox bu neex bi bu neexé rek sori way bi dotul feñ suñu jafe-jafe lepp moy dañoo yité won ndox be fi mu toll ni ci biir koor gi sax la mu na wax wa da non dog ndogu te duñu am ndox buñu mëna naan wa nga xamné buñu naanul ci ndoxu forage gi ah duñu am ndox forage bi mom neexul neexul kon nak li buñ ko amé dañu sant yalla baaxa baax. waaw sori na nag waaye yaakaar naa ne bu motul ñaari kilomètres yi mot na kilomètre ak genn war waaw waaye loolu moom li ci am solo yëpp ak liñ ci yaakaaroon yëpp moo dina fexe ba am ndox mu neex rek ah, xanaa gën a sante bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ko financé ah, di leen ñaanal nag suñu borom nga xam ne dara teewu ko yal na mu yokk leen ñoom ñëpp bu ngeen yegg ko yéen ñëpp waaw saa yoo yeewoo rek xam dëkk leen ñaan xam ne ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax. ñu de soñoon nañ bu baax a baax ndax dañ doon war rek fu ne dem nañ fa. yenn saa ñu dem ci tool yi ne damay roose ndox bi doyul ñu war a fu sonn fu nekk dëkk dugg nañ fa te duñu am ndox wax dëgg kontaan nañ bu baax a baax di ñaanal yàlla mu yokk xéewal gi ak wér gi jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax a baax ndax dañ doon war ba sonn duñu am ndox. On est euh, dans le village de Mbedab donc un village qui est dans la région de Fatick. Alhamdulillah, on est actuellement ici pour procéder au lancement des travaux du puits qui est dénommé Beka, Bel Qasim et Zahia. Je pense que j'ai bien prononcé. Donc euh, c'est un puits qui a été financé par euh, l'association Open Sourire euh, pour le compte de ce village-là. on est Alhamdulillah ici au, début des travaux. On a choisi cette zone-là pour bien implanter le puits parce que c'est un peu loin des maisons. C'est environ 2 euh, km des, demeures. Parce qu'on espère qu'ici, dans cette zone-là, on pourra avoir une eau abondante, mais aussi une eau douce. Parce que euh, le problème ici, dans ces villages, c'est que euh, les gens ont du mal à trouver une eau agréable à la boisson, une eau agréable à, boire. Donc nous demandons à la Santala d'agréer ça, que, ça soit en Sadakhatul Jariya et que le puits puisse durer ici des années et des années pour profiter aux populations. Donc on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, bientôt. On va revenir ici à Mbedap pour essayer de faire euh, l'inauguration de ce puits. Donc salam alaikum wa